la ñu dëgmal la bu gars yi defee ay déplacement bu ñu si jëloo ay matukaay giraawaali gu rëy mën naa am musiba mën naa am ci Sénégal te jamono ji ñun li nga xam ne moom la ñu sàkko ci état bu mu tere mboolem loo xam ne ay dajaloo la jëm ci wàllum diine jëm ci wàllum culture jëm ci wàllum politique loolee bu ñu ko deful musiba ma bu kumba mën naa am ci réew mi ndax li am ba des mooy variant delta bi ma ngi jaaba jonge ci réew mi yéene kaay gi du l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu soo moytuwulee caaf dina xëma làmbaay njaaw ci ñetteelu vague bi nga xam ne jamono ji nag bëri na ñoo xam ne amee nañu corona coronavirus waaye nag li nga xam ne nag moo ci gën a doy waar maanaam lal yi nga xam ne moom la ñuy tëral ñi nekk réanimation lal yooye jamono ji ñëpp daan ñu koy occupé lal ya jeex na yéen kaay gi ne na quarante malades yoo xam ne ñoo ngi ci sous oxygène yéen kaay gi ne na Ndakaaru Njaay nag coronavirus bi fi la ndax lu toll si ñaar fukk ak juróom ñett ci junni kaay yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci biir Ndakaaru ci sous-région bi jamono ji mën nañoo wax ne senegal moo ko ëppale l'observateur mooy wax yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal jamono dëkk bi metti na génn xeetu metti metti xam ne dafa mel ni njiitu réew mi di président Macky Sall yëgulu ko yaramama ndax jamono ji nga xam ne bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara day taali ci marché bi variant delta bi di jaaba jonge ci réew mi askanu Sénégal nekk sa njàqare ak Tabaski gi nga xam ne mooy dëg ma la góorgóorlu bi yorul ñaari salaamaaleykum ba pare xar cher ba maara day taali jamono jooje nag Macky Sall jël li nga xam ne mooy roppalaan gi maanaam nekk si jaww ji dafa mel ni daal jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund maanaam Macky Sall nga ñëm sa yéene gi di enquête ñu xëy fekk fa professeur Ngouda Mboup nee na article L29 loole nag ay article la yoo xam ne yu anticonstitutionnel la yéen a kaay gi di la témoin nee na nag jamono ji bëri na ñoo xam ne ñoo ngi wax ne ay candidat la ñu doon ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi nag nam ko gisee nee na waxtu wi nga xam ne gars yi dañuy dóor marto di def pression ci ki nga xam ne mooy Macky Sall waxtu woowee moo jot ndax bëri na ñoo xam ne dañu fee nekk naan candidat la ñu ci élection locale yi waaye ay dóor la yéen a kaay gi di wal fajëre ñu xëy fekk fa majey mbooca bu yoonu askan wi moom nag daan na yekk musiba ak mbelengaan ki nga nga xam ne mooy Macky Sall nee na ñaawteef yi nga xam ne amoon na ci régime Abdou Diouf ak ñaawteef yi amoon ci régime Abdoulaye Wade ñaari ñaawteef yooyu yëpp la Macky Sall jël daal di kay ngar daajoo yéene kaay gi la sa ñu fekk fa Kani Beye bokk ci taxawu Sénégal nekk maire bu Louga moom nag nee na Macky Sall jamono ji daal yëfu dictateur rek lay def te élection présidentielle 2024 Macky Sall jamono ji daf caa bëgg a bokk te nag am na loo xam ne waruñu ko nangul Macky Sall moom Kani Beye ci journal bii la sa nee na Macky Sall ngir ay intérêt personnel am ngir ay intérêt rek na ngir a kaay gi di réew mi bi jamono ji génn na jox nañu ko procureur waaye nag Sénégal ndax pare na ngir topp ñi nga xam ne maanaam ay kilifa lañu def ay ñawteef ci li nga xam ne mooy alalu réew mi yéen a kaay gi di las ak Sud Quotidien ñoom Guy Marius Sagna nee nañu danañu porter plainte ñi nga xam ne ñooy waa CNO ndax nag CNO jamono ji jafe-jafe yu métte métti la ñu teg askanu Sénégal yéen a kaay gi délibération nee na seen bu ñu waxante dëgg seen eau catastrophe la catastrophe la seen eau yéen a kaay gi di source xëy duñu xibaar lu doy waar a doy waar ni ki démb ca tribunalub la yéen a gi nee na dafa am benn waay boo xam ne dañu ko doon àtte ci lu jëm ci wàllum escroquerie waa ji libaas laay mbuub la tudd ab allié Macky sa la maanaam dañu ko doon àtte ni ki démb ndax dañu koy tuumal ne dafa nax lu toll si ñaari téeméer ci ay nit nee na nag moom waa ji di libaas laay mbuub mere lool lool ñi nga xam ne ñooy policiers yi na policiers yi dañoo ñëw këram vingt-deux heures fekk ñu togg